Matar Diop nekk au conseil des collectivités territoriales nekk responsable APR fii ci ci Touba tey ñëwoon fii ci ci ndogu jeunesse républicaine bi Euh, mu nekk initiative boo xam ne bu rafet la parce que yaakaar naa bi ñu génnee élection ba léegi nit ñi gisuñ peut-être ñu def ay déplacement yu mel nii euh, tey ñoom ñu jël initiative ci koor gi ñu def ay action sociale euh, pare boole ci ndogu ñu invité ñu ci en tant que responsable ñu ñëw wétal leen ñu ñëw nekk seen wet comme seen mag seen seen i seen i xarit seen i seen responsable ci initiative bi ñu def ndaxte bu nekkee ay jeunes lañ nekk. ci parti bi di liggéeyal parti bi bu ñëkkatee lu mel nii ñëpp dañoo war a ñëw taxawu leen ci liggéey surtout bi ñuy def bu loolu jàllee tamit avant loolu gis nañ seen taxawaay ci local bi euh, ci euh, pré campagne bi euh, boo leen gisee da leen di doo leen sax xàmmee talatuñu woon naan talatuñu woon lekk talatuñu woon dara ay tànku neen sax dañ ko doon def di dem fi gën a sori ci quartier périphérique di sensibiliser nit ñi pour ñu ñu voter massivement liste Benno Bokk Yaakaar bi kon boog loolu su amee tey ñu am ñu organiser lu mel nii euh, man am naa droit ñëw delloo leen njukkal ci loolu delloo leen njukkal loolu tamit ci turu coordonnateur Moussa Sow mi nga xam ne peut-être nekku fi delloo leen njukkal turu président Macky sal ndaxte ay ndawam lañ moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy gëm. kon boog loolu moo tax ma déplacé wu ñëw surtout di di féliciter le cordinateur Modou sal ci initiative bi di ko wax nañ nañ yokk initiative yu mel nii euh, loolu mooy dundal parti bi loolu mooy tax parti bi gën a jëm kanam en tout cas l'ensemble euh, des jeunes. yi nga xam ne ñoo bokk ci COJER ñoom ñëpp maa ngi leen di encouragé di leen félicité fekk naa fi tamit ay responsable yu mag yoo xam ne ñoom ñëpp ñi ay zone lañ jiite ñii ay responsable yoo xam ne peut-être ci ay gox yu mag lañ nekk ak responsable réew mi ñëpp ñëw nañ tey fekk si leen kon boog ñun euh, euh, bu ñu fekkoon fu mën nañu fekk tamit dañoo waroon bàyyi li ñu war a def ñëw encouragé leen ne ñoo ngi seen ginnaaw ñëw wétali leen ndaxte comme que ñoom ñooy ndawi parti bi euh, lu bëri ñoom ñoo ko mën te ñun ñooy seen mag moo tax tey ñu ñëw wettal leen encouragé leen loo xam ne ñu ngi seen kanam ñoo ngi seen ginnaaw lépp loo xam ne yëkkat nañ ko bu soobee yàlla incha allah danañ ci ànd ak ñoom euh, ndaxte président Macky Sall rek moo leen ñor te gis nañ loolu kon boog euh, coordonnateur ñoo ngi lay encouragé di la félicité di nga yokk initiative yi nii parce que parti bi loolu la soxla ñoo ngi jëm ci échéance yu am solo muy législative législative kenn soxlul Macky Sall moo soxla majorité à l'Assemblée nationale maa ngi leen di wax ne yéen tamit incha allah euh, xam naa ne bu ñu naanee ndox ba pare taxawaay dootul am kon boog yéen takkatoo leen ngeen nekk benn surtout dem leen seeti ñëpp Euh, tey jii président Macky Sall dafa mérito am euh, majorité à l'Assemblée nationale te yéen seen taxawaay ñëpp soxla nañ ko kon boog euh, am na liggéey boo leen ci war a def maa ngi leen di encouragé di encouragé président zone yëpp ak coordonnateur yëpp ci initiative boobu ñu ñu ñu war koo taxawal danañ def ay réunion yu bëri taxawaay bi dana bëri kon boog di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay ak seen fulla ak seen fayda merci beaucoup. sëñ Modou mbay maa ngi tàmbali samay kàddu di sant yàlla bu baax nag julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñ yaakaar teeg ëllëg muy sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér njabootuk sëriñ Tuubaa gi yépp barab bi ñu nekk di Touba di suñu lépp tey Euh, li ñu doon ñaan mooy am ay ndaw yu taxawee taxawaayu ndaw mat sëkk ca tey jii sans risque de me mën naa wax ne loolu am nañ ko looloo tax xale yi bi ñu xalaatee lu am solo lii ñu defe fii ci Soura jàkkay sëñ Mbay Njaay muy waa COJER bi ca wax nañ ko léegi bi sëñ Modou Sall jiite ko ak ñi ko àndal ñëpp ñu indil bataaxal monsieur le maire Abdou Lahad mi nga xam ne mooy magistrat dëkk bi mu woo ma léegi ne ma lu ma jàppoon naa ko bàyyi ndax dama demoon mission mu defi woon boori Mbuur soog a egsi waaye lépp nag ci liggéeyal sëñ Touba liggéeyal dëkk bi mu wax ma ko ma sawar ci lool ndax mbiru xale yi day dafa nekk loo xam ne ñun lu ñu xam la ndax yéen ñi ñëpp séq nañ loolu sama mag bële El Hadj Ndiaye di adjoint au maire wax nga ko léegi Bassirou Diagne di sama rak di sama xarit commission ba nga xam ne mooy commission jeunesse bi ci commune ba ñu dénk ko ko xam naa dafa jotagut euh, euh, a gut de charge yi ak mission yiñ ko dénk waaye ci sama doxalin xam ngeen ne man ku xam laa yefi lépp lu jëm ci administration ak commune bi jëm ci xale yi loolee luñ cay def moom mii kenn du ko ca gennaawal moom lañ koy dénk ndax man na ko sëkk ndax loolu yoroon naa ko sama rakk ji fi jóge léegi Matar yoroon na ko euh, kon tey ñoo am yéene ci moom mu doxal loolu ak ndaw ñi gis nañ moom relation am ak xale yi defe naa taxawaay boobu aussi dana ko am ci wetu mag ñi ci wetu ñun ñi ñëpp pour liggéey loolu général foofu laa koy dugal ak ñeen ñi fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla nuyu leen ci turu monsieur le maire Abdoulaat Ka mu jàpp ne moom lépp lu ñuy yëngal ci dëkk bi moom lañ koy yëngalal looloo tax looloo tax leen ñu ko dénk amul lenn politik waaye ndaw bu dajaloo ne kat man damay def lu baax boo ko ko yëgalee moom da ci caa war a fekk si loolu mooy tànk yi tey mu ne ma leen di sant di leen gërëm di leen tàllal loxo ci liggéeyu liggéeyu liggéey bi ñu ko dénk muy liggéeyu sëñ Touba bi daanaka wax ji jërut guddal loolu la ma waxoon ma wax leen ko yeneen wax yi sama waxu bopp lay doon ndax jotaay bii dañ cee am wàll bu weesoo Abdoulaat mi ñu jiite mi ñu yónni muy monsieur le maire di suñu kilifa sëñ bi dënk ko dëkk dëkk bi dëkk bi boo doon xool quatre-vingts pour cent yi presque wala soixante-dix pour cent yi ay xale lañ kon ñooñu aussi daf leen bàyyi war a bàyyi xel ci activité bu ñuy def loolu moo waral muy daayira muy association muy lu mel nii su amee rawatina ñoo xam ne nag dañoo nekk waa kër président Macky Sall ci président Macky Sall di ko jàppale ci lii sëñ bi dénk ko ci lu baree baree bare ci dëkk bi li fi président def ci dëkk bi jërul ñu koy ñu ci ñu koy limaat xam naa kii def conférence bi dana ci delsi waaye boo tàllale sa loxo daj kon nag waa këram bu ñu dee def lu mel nii muy COJER walla ñu bokk ci këram muy COJER bi nga xam ne moom la Modou Sall jiite moom dafay am obligation ñëw teew looloo tax ñu teew mais bu loolu weesoo man en tant que politique ci dëkk bi lii xale yi di def lu bari ñu jaar ci lu mel noonu ci dëkk bi ca loolu ñi toog fii tey ñi ci yàgg ñépp mën nañu firndeel lool sama rakk nga nele Basiru Gay ma koy nuyu au passage di nuyu ñépp nag sañ am satu Baaba Ndaw tudd naa leen bàcc ñoom Moustapha Seck ñoom Cheikh Dieng ñoo ñëpp bu ma sañoon ñëpp lay jaar seen tour waa réew mi ndax tey on parle de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la grande coalition présidentielle ca loolu parti muy AFP muy réew mi muy PS muy yeesal bu Modou Diagne Fada ak yeneen parti dañoo ànd ànd bu rafet ñun ñu nekk APR tey nag dëkk bi am défi yu bare bare bare bare yuñ ci war a relever génn nañ ci ay élections ñëpp xam ni mu demee woon ñu ñu raw am vingt neuf mille voix ñun coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am vingt huit mille voix presque neuf cent voix la ñu kon loolu defe naa yeneen joŋante yi ñëw. su nii ngeen tàmbalee def booloo wala woote unité am defe naa remonte remontada neuf mille voix du lu jafe jàngat élection yi sax jërëtu ko ndax ñunu nee na ndax am na ci ñoo xam ne dañoo faroon bee boor ñii jaar na le ñeneen ñi jaar na le xam nga loolu tasaaroo am na ci suñ vingt huit mille voix yooyu kon ñeneen ñi vingt neuf mille vois yi nga xam ne ki ñu raw moom la am su fekkoon na ñun ñëpp ñooy ànd ñun li ma leer ba leer mën nañoo am quarante mille voix ci élection yooyu kon appel boobu laay lancé fii santaat leen nag gërëm laa waat leen yéen ñëpp ci seen taxawaay ndax nag vingt neuf mille voix vingt huit mille voix du ay caxaan ku ko dajal ci ay élection tu réunis l'électorat d'une région je dis bien l'électorat d'une région yeneen muy Fatick muy Matam doo mën a am vingt huit mille voix yooyu kon nag li ñu am nañ ko xam lii ñu am fii ci dëkk bi moi j'ai l'habitude de le dire j'ai l'habitude de le dire à partir de Touba on peut gagner des élections au Sénégal ndax potentiel bi fi nekk am nañ appareil politique nag amuñu ko ndax appareil politique mooy taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am ci responsable yi mu am. loolu nag vraiment nañ xoolante rek wax ko suñuy kilifa ne loolu manqué na fi. buñ bëgg na wax ci ndaw ak politique dañuy wax ne ñaar la yoo xam ne benn mënta dem sa moroom ndax bu ñu waxee as sa politique ki ko war a diriger mooy ndaw. ndaw mooy ki nga xamee ni tey lépp lu fi taxaw même ci lislaam bi muy taxaw ci l'islam bi muy taxaw yonent bi bi ko yàlla jox mission bi day nekk ndaw. ca ndaw li yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci alquran mooy koo xam ni am nga 40 ans ashaddu mooy ida balaxa ashaddu borom bi nee na mooy koo xam ni am na 40 ans li nga commencé 25 ans ba 40 ans kooku ndaw la ca lépp lu taxaw ci lislaam rek loolu moo ko taxaw bu ñu waxee nag politique mooy lan ci lislaam mooy fexe ba gox bi ngay dëkk mu defaru gox bi nga nekk nga fexe ba xam ni wàllu social nga defar ko ci wàllu wàllu wépp wàllu woo xam ni amal na lislaam njariñ nit ki taxaw ci dañu wax ni loolu mooy li nga xamee ne nay mooy politique am na ñoo xam ne bu dee Machiavel am na nu mu ko découvrir nu mu ko jàngate si leneen ak leneen waaye ci l'islam dëgg-dëgg mooy kenn ku ne daw la mooy fexe ba sa environnement bi nga nekk sa gox bi nga nekk nga jagal ko nga fexe ba mu yéwén ca loolu ki ko war a def mooy ndaw kon ñaar la mbir yoo xam ne benn mënu see tàqal ak sa borom kon ndaw l'islam daf ko bàyyi xel l'islam dafa bàyyi xel usaamatu bnu zayd keroog bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam di yebal muy jiite ci xurubu ridda 18 ans rek la man ca boobu ay magang fa woon waaye kan la tànnan muy ndaw boo xoolee keroog ku mel ni ku mel ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi muy symboliser l'islam 18 ans rek la am même Mawlana al Abdul Khadim keroog lu rëy lii nga xam ne moom la defar muy yoonu murit bi mu koy tabax moom Cheikhul Khadim amul 40 ans. bi mu bind téere bi mu njëkk bind mi ngi ko bind ci l'âge de 23 24 ans kon loolu mooy ndaw kon ndaw bi nag pour mu war a jóg pour mën a defar goxam dafa am ay ay ay yóbbal yu mu war a yóbbaloo yóbbal bu njëkk bi mooy lan mooy xam-xam. ñaareel bi si des mooy ab yar ndax politique damay jàpp ni ki jóg di politique war naa am comportement boo xam ni ñim dëkkal dinañ ko ñime ñim dëkkal dinañ ko miin ñi dëkkal bu leen wax loolu jikko lay doon joo xam ni te yonent bi bi ko yàggalee tàgg si lañ ko tàgg way in innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq innamal umamu axlaaquhum ma baqiyat in humu zahabal axlaaquhum zahabu nit ñi seen i jikko moo leen fi bàyyi kon nit ndaw li jóg di def politique dafa euh, jóg di def politique war na am ay valeur ndax mooy was yi nga xam ni jumtukaay yi nga xam ni ndaw li mënuñu koo ñàkk yóbbuloo pour ma mën a atteindre ay objectif am te damay wax ni ku am président bu mel ni suñu bés man dama am fierté li ma gën a neex ci politique mooy ma am président bu mel ni président Macky man damay wax ni man ma am am am ak bëgg ci président Macky Sall mooy ki nga xam dama demoon est-ce que bu bàyyi woon tax du ma bàyyi politique man politique Macky Sall ma ci bàyyi ndax ab yaram ndax comportement ndax humanité am kon nag loolu am na loo xam ne cun moom lañ war a taxawee pour ñu mën a atteindre sunu sunu objectif yooyu ndax lépp loo gis mu taxaw ci àdduna rek ndaw moo ko taxawal. fi mu ne nii lépp loo xam ni mi ngi doxal ab société di doxal ab environnement di doxal ab muccama loolu ndaw la kon Modou Sall ñun am nan responsabilité yu mag a mag a mag ci taxawu président Macky Sall ci réalisation yu rëy yi nga xam ne def na ko ci dëkkub Touba bi waaye ñun lan lañ ko war a taxawal nag. loolu lu am solo loo xam ni damay wax ne ndaw mag ñu bare bari seen seen seen seen seen jamono wéy na waaye ñun ndaw ñi nag ñoo war a taxaw symboliser ko. waaye li Mor loo wax nag mais nag loolu dafa am tuuti manque manque yoo xam ne moo nekk ci ndaw ñi mooy ku leen ñàkk gestu ñu leen ñàkk a dëgëral loolu am solo loo xam ne jàpp naa ne bu nu ko amee rek dana gën a mucc ayib ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu daan yabal ndaw ñi ñu daan dem ci xare bu leen daan yabal ñu daan dem di di di di di yu bare bari daf leen daan jox ay ay daf leen daan jox ay yóbbal daf keroog bi mu yabal Usaama ibn Zayd da ko wax ne ko bu leen rey mag sa jaysul usaama bu leen rey gone bu leen dagg garab bu leen rey benn xayawaan boo xam ne dafay meññ jox leen ay wasiya jox leen ay ndénkaan ku mel ni Muaaz ibnu Jabal keroog bi ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam di yebal muy dem Yaman kooku ndaw la woon même bu ñu xoolee ci wàllu politique. ku mel ni président Abdou Diouf nan xool bi muy nekk gouverneur la de dix vingt cinq ans ci la ko am nekk gouverneur bu Sine kon am na ay ndaw ku mel ni Wal Jooja Jaay ku mel ni Diop de Croix mi bi ko Senghor di jàpp ñoom ñëpp ay ndaw la noon kon lu fi am rek réalisé ndaw ñi ñoo ko réalisé kon ñu xap jàpp ni ndaw mooy ki nga xam ni xilqatun zahabiyatin turabbitu bayna al maadi wal xaadir mooy ki war a mën a xool démb jël tey man koo lëkkaleeg ëllëg pour mu mën a tabax ab société boo xam ni mooy société bi bëgg a tabax mooy mooy mooy al madinat al fadal mooy la ville sainte bi nga xam ne moom lañ bëgg mooy émergence bi nga xam ne moom la ñu président Macky Sall di woo loolu ñi si war a jiitu mooy ndaw ñi loolu nag dafa am ay was yu ñu yóbbale woo was yooyu ba ci jëkk mooy xam-xam ba ca des mooy mooy mooy musaawara ñuy diisoo di waxtaan ñaaral bi li Mor Lo li mu Mor ñaan jàpp naa ni képp ku fi nekk rek war na koo mën a ñaan mooy causerie yëpp nekk benn jàpp naa ni li nu échoué ci élection yi mooy ñàkk am benn nekk benn kon nan bokk ne ci pour réussir ci bépp liggéey la koy taaral mooy wax mooy wax da mooy borom bi nee na waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu sëriñ tubaa ni wala falaa tuaddu kulla man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah kon bu nu bëggee symboliser lii nan ko symboliser ci ci ren symboliser ko ci lan unité mooy bennoo ñu fexe ba am bennoo ñu fexe ba am consensus boo xam ni moom la ñuy teg pour ñu dox pour man see jëm pour ñu tabax li nga xam ne moom lañ bëgg a tabax mooy représenté mooy sunu dëkk bi nga xam ne ci la ne mooy Touba al Fadila nga xam dafa wuuteeg dëkk yu baree baree baree bëri ci lu baree bëri kon ñi fi politique war na noo xam ne dafa am lu wuutele ñu am comportement buñ ci war a doxe am yoon wuñ ci war a mën a jaar pour atteindre le président Macky Sall ay objectif am ndax lu bari lu ko war ci dëkk bi def na mais lu baree baree bëri dama damay taxaw solennellement wax ni mooy président bi gën a liggéeyagoon ci Touba depuis ñu fal Sénégal avant l' indépendance après l' indépendance président Macky a xool nan lan ñu amal ko ndam ndam ca ñun ndaw ñi lu ñun ndaw ñi ñoo ko mën a def ca ndaw ndax lépp lu baax rek dama jàpp ni ndaw la kon nan ci waat xel ñu bañ a guddal xam ni waxtu wi du ko mat liñ ci waajan daanaka sax introduction bi sax defuñu ko ca ala kulli waaye Euh, li am solo mooy nii lii fi daje kilifa yi ku le xam ne ñii am na lu bëgg am na fu bëgg jëm kon nanu ñaan président Macky Sall moom itam ñu jàppale nu ba ñu mën a atteindre suñu objectif ba yaakaar ji nga xam ne am nañ ko suñu ñu mën ko atteindre aquli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saalibil muslimin di nuyu sëñ Maodo Sall mais nga xam ne tey moo ñu fi invité ak concert bi mu jiite yëpp ñu def délégation bu am solo ñëw fi ànd ak Ibrahima Ndaw soxna mu Jóob ak Ndaak Njaay ak Ibrahima Fall mi toog fekk fi ay kilifa ñu jàmbaare ci parti bi ñu am taxawaay ci dëkk bi mën naa ci tudd Mor Lo toog di sunu grand ñu yàgg xamante bokk dëkkoon sura ak yu baree baree bari mook sumay kilifa jaxasoo woon lool nag wax dëgg yàlla am ma fër yi ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay Bassirou Diagne noonu bàcci soog général Diène Gueye mi ñëpp rek ku lim juum sëñ Mamor macha allah kaddu yi am na solo trop sëñ Amsa ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay yow ko am taxawaay nga dama la gëj gi sànq maa ngi koy wax. donc sëñ du wax ji moom du bari dañ koy gàttal ñoo ngi rafetlu initiative bi wax dëgg yàlla am jeunes yi moom ku ne ku ne rafet ci seen jor ndax heure bu parti bi jugee mu yëngatu mën naa ne ndaw ñi la. bu dul côté bii di beneen côté kon am ngeen taxawaay yu kawe kawe kawe wax dëgg yàlla ñoo ngi leen di sant ci seen taxawaay. ñu ngi ci weeru koor di ñaan yàlla ñu dugg ci jàmm ak salaam génn ci ak jàmm ak salaam kenn bañ a manqué ba élection yi ñu jub si yii nga xam ne moom la ñu jëm muy élection législative fii ñu am ci ndam te ñu nag. comme ni ko sëñ Mor waxee léegi rek ñu fexe ba ñaari koseer yi muy bu Modou Sall ak bu ñoom Talla Sylla yëpp na ci kilifa yi dox ñu doon benn parce que bennoo dafa jot. ndax li am ci élection yi ko xool xam ne war nañoo bennoo suñu bennoo rek lu bëree bari mën na mën nañoo indi lu bëree bëri muy lu am am solo ba ñu guddal nag. Euh, vraiment di am mbégte lool ci fekk jataay bi di sant euh, mboolem ñi fi teew ñëpp responsable Benno Bokk Yaakaar yi fi teew yëpp. du ma dugg ci lim ay parti wala may lim ay nit euh, su ma nee nuyu naa ñëpp rek vraiment euh, nuyoo bi agsi na ci ñëpp kàddu gi daanaka mënoon naa ñàkk ndax euh, bi may agsi maa ngi fekk sama frère sama xarit moorloo muy wax biir kàddoom yi mu wax ci kàddu yu am solo yoo xamante ni daanaka samay kàddu mënoon naa dugg si biir euh, oustaz Mamor Fall aussi ñu koy nuyu di rafetlu xam-xamam euh, lim fi jot jàllale li muy gàtt gàtt lépp njariñ la ak ñi fi jaar yëpp Moustapha Seck bu bu ndindi ak responsable yi fi nekk yëpp euh, di rafetlu vraiment initiative bi di féliciter Cojer ma koy jaare ci Modou Fall bi nga xamante ni mooy seen président ak ñi mu ko àndal ñëpp ndax lii initiative bu am am solo la ndax buñ nee dañuy woote ndogu je pense que ku nekk am nga ndogu sa kër mais liñ ci teg mooy li am solo mooy ndogu de l'unité loolu bu ñu xoolee kàddu yi fi jaar yëpp lool la mooy booloon a am donc comme initiative bi départ na ci ndaw yi yaakaar naa lu war a yomb lay doon sama frère moorloo Lo mi ngi koy wax sànq di wax ne li mu bëgg ak li muy ñaan te yaakaar naa ni mu ko bëggee noonu la ko ñëpp bëggee mooy COJER yëpp nekk benn. yaakaar naa li ñuy wax xaajali ko fii ci département bi bu ñu ko commencé ci ndaw ñi pour mu agsi ci mag ñi lu yomb lay doon pour ñu mën a booloo nekk benn te coalition bi. bu ñu wuyoo tur coalition bi bennoo bokk yaakaar mooy ñun ñëpp ñu bennoo nekk benn donc xëy na temps wu ndog bi jege na te sama mbokk njóobeen yi mel na ne yàkkamte nañ damay bañ a monopoliser kàddu gi di ci di ci jël temps bu bari liñ yéene woon a wax bari na mais lu ci ëpp lu ñu jàll wax nañ ko dañuy sant bu baax vraiment di féliciter Cojer encore di leen sant di leen gërëm di leen wax ne lii ngeen def moom lu ama am solo la. gëm naa ne occasion yu mel nii moo bari mais bu doon bari réeroo mën nay bañ a am ndax kenn ku nekk dinañ la jox temps bu doy nga wax li nekk ci yow lépp ñu dajale ko mën a déggoonte ndax bu ñu waxantee dëgg parti bi benn problème rek moo fi am mooy dañuy tuumalante tuumaalante gi mi ngi mooy tekki ne ñi jàpp ne ay kilifa lañ te ñoo daan jóge ci kaw di indi information yi. ku ci ñëw da nga naan président nee na añe na maag moom ak wala maag moom ñoo reerandoo gone yi ngi fi bàyyi te jàppe leen ay militant wala ñu nekk di daw ci parti bi tamit ñuy xaar information yi loo leen daan wax da leen di doy waaye nag ñu toog di ko xaar ci diir bu gudd dig yi nga leen di dig naan leen añ ba ma añ président amul lum jur ñoom it ñu dem ba xam ne añ boobu ngay añ président tamit munu leen a jural dara ñu taxaw léegi fi la parti bi tool ki daan indi information bi ak ki mu ko daan yót dafa am lu leer ci seen diggante léegi ndax jàpp naa ne kuy añandoog président Macky Sall jóge ci ab gox département bu toll ne Mbacké li mu représenté ci Sénégal poids électoral bi fi am ngay reerandoog président te munoo lijjanti ñaari nit sax ñu xëy ñoo xam ne dañ ne ñii ci sa añ boobu nga añ président la jóge kon da nga leen di nax gëm naa ne foofu lañu toll ñi nga xamante ni ñooy xaar añ boobu boobu ba léegi te dara munu koo jur ñoomit ñu ne ñii leen di indil information bi dañ leen di nax ci diggante boobu ci lañ ñeen ñenn ñu jàpp ne xëy na buñ dévier kilifa yooyu doon indi information yi te du information yu wér mën nañoo joti ci kilifa gi te kilifa gi tamit mel ne ku déggul liñ koy wax foofu la parti bi toll mais dama gëm ne jotaay yi ñu am. bu mel ne bu tay bi nga xam ne ñu ngi gërëm coordonnateur Mout Sall coordonnateur Mout Sall bi nga xam ne moo ko organisé ak ñi mu àndal occasion la maanaam nekk benn déclic boo xamante ne si buñ ci jógee gëm naa ne beneen ndaje buñ tase nu ñuy def ba organiser parti bi lañuy wax. man de personnellement bu fekkoon damay añ ak président wala man ndékkeeg moom benn yoon kese gëm naa ne bu ma fa jógee lu bari dina soppeeku ndax. am na genn kilifa gu mas a toog moom président ne ko man li ma ci jaaxal mooy am na ñoo xam ne buñ toogee li ñu wax yëpp mosuñoo tudd problème mu nit wala ñu tudd département bu ñu jógee seen mbiri bopp dong la ñuy wax. kilifa gi nag bu fekkee da nga koy jege wala ngay waxtaan ak moom te mënoo ko wax luy jariñ askan wa wala ña lay puus ñi nga xam ne ascenseur bi mu ñëwee doon benn place kese yow lañ ko bàyyee nga yéeg ci kaw boo leen mënta lijjantit ci jotaayu président boobu matutoo leen kilifa nañ waxante dëgg. ñun ñi ñëpp bi président di door dañu dugaloon suñ loxo politique nag niñ ko tënkee saxaar la guy daw gaar bu romb dana am ñu yéeg waaye tamit dana am ñu wàcc am na ñoo xam ne bi ñu créé parti bi ñu ngi fi woon tey nekkatuñ fi ñii bàyyi nañ président Macky Sall ñii yàlla moo dogal ci coobareem mu moom leen ñooñu ci ñi wàcc lañu bokk am na ci ñoo xam ne bi ñuy falaat président ci deuxième mandat ci lañ ñëw jàpp ci liggéey bi ñooñu tamit bu ñu doon waat ne kan moo fal président dinañ ci dugal seen loxo mën nañoo yëkkat seen loxo ne fal nañ ko. mbir nag bu tollee foofu te jàpp naa ne élection locale yi enseignement yi ñu ci waroon tirer dafa bari ci déroulement élection yi ni mu amee li tax ñu ñàkk ak li tax waruñu woon a ñàkk. ndax sama frère Fata Diop wax na ko fi léegi écartu 1000 voix lañ am wala 900 voix loolu damaa jàpp ne famille républicaine bi nekk fii bu ñëpp kenn ku dugaloon sa loxo kon tey laneen la ñuy wax te victoire kenn du ko xeeb gis nga Yewwi Askan Wi ñuy wax ne moo gagné département bi buñ jàpp ne da koo gagné rek tëdd di nelaw victoire moo mel noonu ci kuy wuti wala kuy bëre saa boo ko amee sa yaram day xasan laneen ngay bëgg buñ jàpp ne buñ amoon ndam loolu peut-être day kii déedéet buñ gagné woon élection locale yi jàpp naa ne ab ubbeeku lay doon ci beneen élection buy ñëw ndax ki nga xam ne da ngeen a tase ci combat nga gagné ko donte ne verdict bi sax dañ koo joxe nuñ ko tuddee décision arbitrale nga xam ne diggante bu xat ci lañ xëccoo yéen ñaar bañ jox la ko tamit ndam du tuuti dina la may confiance di nga am capital de confiance boo xam ne tey jii lu taxawaat sa kanam da ngay xam ne da ngaa war a gagné kon dama jàpp ne weesuwul. pour ñu mën a toog waxtaan alhamdulilah ba président ne day recevoir département bi mais foofu tamit liñ koy yóbbante waxuñu resevoir boo xam ne bu mbaay lay doon ñu doon département bi yëpp ñu jël leen dugal leen ci benn salle ñuy wax foofu déggoo du mën a am na recevoir monde rural bi muy 14 maires yi nga xamante ne si wala 15 yi bokkul ak Touba mu recevoir leen bu paree nag mu jël Touba ndax Touba spécial la ñu xool. reconfiguration politique bi ku nekk xam na ne sensibilité yi nekk ci dëkk bi bari na fenn fu nekk ñu wut ci ay représentants dugal leen ci biir ba ci communicateurs yi nga xam ne dañuy sonn pour président sax ñu dugal leen ci. bu ko defee bu ñu jàkkaarloog président Macky kenn ku nekk bu waxee jàpp naa ne saafara mën naa am foofa ndax coow li muy bari bari nii ñuy wax di wër-wëral yëpp président Macky moo yor caabi ji fi mu ne nii. ñuy wax nii di indi information dañuy wax rek. kenn gisu ci président Macky Sall wala ku ko ci gis tamit sa waxi bopp dong ngay wax président sama projet bi ma la joxoon mille 2017 ak président nuñ nañ ma jàppaleek ay nangam nangam mais jamais au plus grand jamais nga ne ko por bee de bañ ko ubbee ba tey doomu Mbàkke wala doomu Touba musu faa xëy kudd bee mosuñu fa embauché benn doomu Touba doo ko dégg ku ko wax te loolu pourtant lu yomb la léegi nag ñun buñ demoon tey ba toog ci kanam président bala ñuy dem mën nañoo toog waxtaan concerté wu suñ biir ki nekk reconnaissance bu ko kenn bañal la muy xeex ba àgg ci kanam président président moo yor saafara ba na ko ko wax nañ ko bàyyi mu wax ko ko. ki nga xamante ne si coordonnateur ub zone la moo xam la muy dund ci ab zone am nañ ko bàyyi mu wax loolu ci kanam président ndax bu ñu fa nekkee di xat-xat loo ko wax ngir ngir loo ba amuñu fa résultat tamit buñ ñëwee kasara lay doon muy lem gu mbaam guux te loolu jàpp naa ne ñun yóbbu yóbbuwuñ ci kanam président Macky Sall cadeau bi nga xam ne destiné nañ ma ko maa ngi koy jël di leen ko delloo ci xol bu sedd guyu parce que lépp ñoom la ndax dañ maa jiital te fakkataluñ ma benn yoon kon liggéey bi yëpp dama koy jëlaat teg ko seen loxo li ko firnde nag yaatu na trop mais mën nañ ci tudd benn diir bu gàtt muy tey toute la journée kenn ku nekk ci ñoom da ngaa bàyyi say activité personnelle ñëw jàpp ci liggéey bi ba yaakaar naa mu am réussite totale bu mel nii kon kado boobu nga xam ne destiné nañ ma ko maa ngi koy jëlaat di leen ko delloo di leen yëgal ni di leen wax ni lépp ñoom la sama xol sedd na ci ñoom ñoo ma dooleel ñoo ma ñemeel di leen assureel que ni fépp fu ma toog muy taw muy naaj walla lu mënti doon. seeni tànk lay doxe seeni bët laay xoole nañ xam ne fu ma teew ñoom laa fa teewal kon encore une fois de plus confiance bi nga xam ne jëmale nañ ko ci man maa ngi ñaan yàlla suñu borom mu bañ leen a parce que nag kaay jiite moo dàq lépp kon encore une fois de plus amuma seen fay mais nag wolof Njaay dafay wax ni peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca wagg ya kon bépp kilifa boo xam ne yaa ngi ci biir parti APR wala nga nekk ci grande mouvance présidentielle bi wala la coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa bu ma duggee ci lim damay juum mais kenn ku nekk ci yow ci ñoom ñëw nañ en masse ñi mënta ñëw yebal délégation kon kenn ku nekk ñoom maa ngi koy sant di ko gërëm ndax jàppoon naa ni sama jëmm ju xeebu jiikat bu ma woowee du ma gis kenn malgré loolu lépp ñu bàyyi lépp dagg seeni yitte ñëw teewal ma fii kon maa ngi jël cant gu yaatoo yaatu di ko jagleel ñi nga xam ni ñoom laa bokkal langue politique gi kon gëm naa ni lépp kàddu yi remerciement lay doon mais nag il faut que ñu leeral que ni ñun ndaw yi président de la république lañ son excellence Macky Sall fier ci ànd ak président de la république parce que ñun moom lañ xam moom lañ namp moo ñu namputal ci politique. depuis bi ñu duggee ci politique mosuñoo ànd ak kenn ku dul moom te gëm nañ ñi dañuy wéy di ànd ak moom parce que li taxoon ñu ànd ak moom décevoir ñu benn yoon jàpp naa ni président de la république. képp kuy ànd ak moom tey foo jaar foo jaar da ngay am courage dangay am fier ni yow ndawu président de la république nga parce que li mu def dans l'histoire politique du Sénégal amul benn président de la république boo xam ne jaar bu fi jaar boo xam ne def nga ko kon encore une fois de plus nous réitérons notre engagement envers du grand boss le président de la république Macky Sall et demeure de l'être nag ñun ay ndawam lañ duñ duñ ndaw ma sàmba duñ ndaw yi ma demba kon encore une fois de plus loolu aussi il faut que ñu leeral ko di leen xamal ni liggéey bi ñu nekkoon démb ak bërki démb ak tey dañuy continuer di ko doon ñun ndaw yi Macky Sall lañ tey ndaw yi Macky Sall lañ ëllëg mais également aussi mënuñoo pare te béraluñ ak cant ñi nga xam ne ñoom ñooy coalition benn Bokk Yaakaar parce que ni nga xam ni kilifa yi nekk ci parti bi noonu la ñuy jàppale noonu la ñuy jàppale di ñu teg loxo di ñu conseiller ñoom it vraiment li taxoon président de la république coalisé ak ñoom ah décevoiru leen benn yoon. kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa kàddu yi jërul muy gudd parce que les l'essentiel a été di di beral ak cant aussi soxna maam Jaara Ndaw léegi la fi jóge moom muy jigéen du jàmbaar. xàddiwut yox yoxut benn yoon dépp bi ma commencé ànd ak président de la république ba léegi kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais nag mënu ma jeexal te remercier wu ma notre coordonnateur national Moussa saw dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax encore une fois de plus parce que dafa bokk ci ndawi président yi nga xam ne fu président xalaatee ñu jug def loolu moom moo moo tax moom mu yokk ñu motivation ba tey lii ñuy taxawal nii ñu koy def ndax récemment bi ma mujjee gisante ak moom rek li ma wax mooy seul le travail paye ku ñaq di nga jariñu kon encore une fois de plus secret bi liggéey la du wax ju bëri du xaste du saaga. message bi may lancé à l'endroit de toute la jeunesse républicaine. très mooy nañu mooy te xaste yi te bàyyi saaga yi ah ànd ak fulla ànd ak fayda ànd ak yar ànd aki i teggin parce que dëkk bi dafa am lu mu laaj. dëkk bi dafa laaj ay teggin dafa laaj ay ya dafa laaj yar te kum kon ñun ñëpp ay taalibe lañ nekk ci dëkk bi il faut que dañoo war a montrer le bon exemple ak taalibe rek moo am solo kon encore une fois de plus maa ngi lancé appel boobu jeunesse yëpp ñu nekk autour le l' essentiel amuk taalibe ànd doon benn élection yi ñu jëm nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom lii nga xam nii mébét nañ ko ba jëmmal ko fii suñu borom bañ a tas suñu yaakaar mais en même temps ñu bi ñu fa jug ñu bañ fi jugee dispersé wu tasaaroo ñi ngi continuer di tàllal loxo ñëpp amuñu xaaj amuñu amuñu seen ak kenn ci département de Mbacké ba programme bi ñuy def woo nañ ku ci mel ni basiiru Mbuub ak Talla Sylla la invité leen te ñi ñëpp dañoo yaakaaroon ni duñu jaaroo ab taal kon encore une fois de plus suñuy jeune lañ suñuy frère lañ ñoo bokk parti bi nañu joxante loxo parce que lépp lu fi taxaw fii ci parti bi ndaw ñi la lépp lu fi taxaw ndaw ñi ñoo ko taxawal ànd kook seen i kilifa seen i leader leader nag mënul ñàkk mais nañu xam ne suñuy collaborateur lañ nañu ànd ak ñoom àndu nawle and dëgg bañ a ñoom ànd ànd ànd jaayante tàqalu jëwante kon maa ngi wàccee foofu kàddu yi comme dafa xaw a guddi di wax na rek li ci ëpp solo mooy unité bi nañu koy jëmmal di ko doxee di ko waxee bañ ji wax ci kaw di wax ci suuf ñun nag bu ñu jógee fii suñu loxo danañ woy di ko tàllal képp kuñ yaakaar ni bu buñ la tàllalee suñu loxo nga ànd yow li ànd yow liggéey bi ngir mën a jox ndam président Macky Sall danañ ko def parce que nag président de la république bu buñ bëggee buñ waxantee dëgg soxla na soxla ndam ci dëkk bi. mooy fu mu waxee moom ñaari baat ni ko bàyyee naa la ak Serigne Touba képp moo ma doy ci yow te gëm naa ne Serigne Touba ma la bàyyeel lépp loo bëgg dana la ko defal kon mën nañoo am xel mu rafet gën a rafetalaat diggante yi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu